Bonjour chers euh, téléspectateurs et téléspectatrices euh, de Sunu Média. Euh, avant tout, je me présente d'abord, c'est Monsieur Ndiaye, euh, plus connu sous le nom de Moussa Ndiaye. Euh, je salue tout le monde ñoo ngi nuyu ñëpp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi képp ki kilifa di ci réew mi rek ñu ngi koy nuyu di ko jébal sunu nuyoo. Bon, je suis nouveau avec une nouvelle émission qui se consacre sur l'éducation. L'émission s'appelle Cap sur l'éducation. C'est une émission qui est au service de l'éducation de manière générale. Comme c'est la première émission, moi émission bi ñuy war a jiital première numéro ci émission bi. donc euh, duñu def lu entamer le socle de l'éducation nationale quand on dit le socle il y a les principes et quel doit être le rôle essentiel de l'éducation nous allons remonter un peu pour parler sur la loi d'orientation de l'éducation nationale c'est la loi 91 22 du 16 février 1991 mu nekk aussi loi bi nga xam ne mooy bi nekk en vigueur bu ëmb ay principe ak ay rôle mais aussi ay enjeux ak impact de l'éducation parmi ces principes on peut citer quelques principes yu xam ne aussi éducation nationale da koy doxal mu nekk ci sookalam principe biñ ciy njëkkee on peut dire que l'éducation nationale et placée sous la responsabilité de l'État donc État moo yor lépp lépp lu nga xam ne rek wareef na ci wàllu jàng mu ngi teg ci ndodd État mooy responsabilité bi mooy premier principe bi nga xam ne éducation nationale moom la am deuxième principe on dit que l'éducation nationale est laïque quand on parle de laïcité ça fait référence aux religieux et à la, à la religion donc laïcité bu ñu ko waxee rek day ëmb waxaale lu mel ni wàllu diine troisième principe l'éducation nationale et démocratique quand on parle de démocratie il y a ce qu'on appelle l'expression l'expression libre mais comme nous sommes dans le champ de l'éducation il présente aussi des limites malgré que nous sommes dans un pays démocratique. Donc, euh, en plus, on avait énuméré, on peut dire que aussi l'éducation nationale et sénégalaise et africaine. L'éducation nationale et sénégalaise. D'abord, nous sommes euh, dans une république ki s'appelle le Sénégal, il a des valeurs et des principes. Donc bu ñu nekkee ci dëkk boo xam ne aussi dafa nekk réew li ñu war a gën a fonk bokk na cosaan yi fa nekk ak lépp lu xam ne rek day aada yi dëkk ba. L'éducation nationale et sénégalaise mais aussi africaine. c'est le continent africain qu'on que nous sommes. Il faut ce qu'on appelle des relations entre les États de l'Afrique. C'est ce que disait hmm, le premier président africain Léopold Sédar Senghor, qui avait insisté sur l'ouverture, mais avant tout d'abord l'enracinement. Quand on parle d'enracinement et ouverture, on sollicite les cultures d'autres pays, mais avant de les solliciter, il faut d'abord s'implanter, il faut d'abord connaître vos propres valeurs. Ouverture, mais d'abord enracinement. Ça concerne obéissance, coïncide avec ce principe qui dit que l'éducation nationale et sénégalaise africaine. Parmi ces principes aussi, on peut citer que l'éducation nationale est au service permanent du peuple sénégalais. Du peuple sénégalais. Quand on dit que l'éducation nationale est au service euh, national du peuple, là-bas on peut dire qu'il y a priorité, il y a ce qu'on appelle relativité entre les besoins du peuple éducation bi ñu war a njëkk a def day ànd ak éducation boo xam ne aussi askan wi ñooy priorité dañuy topp ci bëgg-bëggu askan bi supposons un enseignant qui est affecté dans une nouvelle zone Puisqu'il est agent de développement, son premier rôle à faire, c'est de faire l'étude du terrain et de connaître, de créer, de ficeler des relations sociales avec la communauté où il se trouve. ci jëflante bi ak jokkalante bi nga xam ne aussi ci ngay gën a mën a xamee communauté bi di wax ak ñoom moo lay permettre sa agent de développement bi nga xam ne moom nga war a incarner mu yombala la tâche yu bëri c'est la raison pour laquelle on di que l'éducation nationale est au service permanent du peuple il y a d'abord la communauté il faut savoir les intégrer comment en faisant bien en créant des relations des relations entre les peuples mais entre la communauté qui est dans cette zone. Donc, on vient de citer ces principes. On peut essentiellement aussi entamer ce qu'on appelle les rôle L'éducation nationale a des rôles essentiels Parmi ces rôles, on peut dire que l'éducation nationale prépare les conditions d'un développement intégral. Donc, éducation nationale li ko war a gën a yëkkati moo ñu fexee ba ñuy dem di avancer ci anam yi ko bëggee ba ku ci nekk war a mën a gis sa bopp et ça ce qu'on appelle un développement intégral L'éducation nationale a pour rôle de promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se connaît. Il faut qu'on se réfère sur les valeurs et nos sources. Éducation nationale dafa war a sukkandiku aussi ci aada ak cosaan bu xam ne euh, population aussi moom la ñuy incarné pour mu mën a avancer. Sur ce, quand on parle des valeurs. On fait référence à la culture. On fait référence à notre réalité qui se trouve dans le terrain. Ça devient un point essentiel pour le développement de l'éducation. Parce que avant tout, l'homme essaie de s'adapter au milieu. On essaie toujours de s'adapter véhiculer le message qui doit être à la portée du peuple. On peut terminer avec un exemple de troisième rôle, c'est d'élever le niveau culturel de la population. Donc ce rôle-là est un peu similaire aux deux premiers rôles qu'on de citer. donc promouvoir le niveau culturel de la population mu gën a jàppale les acteurs du secteur éducatif gën leen a jàppale ci wàllu cosaan ak ci wàllu aada ba nga xam ne du am benn tolof-tolof du ñu am benn gàllankoor ci lu waral indi développement bi nga xam ne moom la ñu bëgg maintenant chers téléspectateurs et téléspectatrices de Sunu TV Nous sommes au terme de notre émission. Nous vous donnons un autre numéro pour la prochaine fois, d'entrer dans les détails, mais aussi de bien expliquer l'importance de l'éducation de manière générale. Donc, à la prochaine fois sur un nouveau numéro de Cap sur l'éducation.